nitu yoon lan nga wax jàngate. Euh, maa ngi leen di nuyu d'abord di gërëm di féliciter président de la république ci mesures yi ñu jël di féliciter aussi chef religieux yi ci mesures yi ñu xam ne Sénégal benn la Sénégal religieux yi la ak Sénégal même ñi gëmul yàlla waaye Sénégal yëpp benn ji la ñu am mooy chef de l'État ci jël ay dispositions yu wóor yu dëgër mais nag li nga laaj ci laaj tontu hmm. xam nga réew toujours am na ñoo xam ne dañu dëgg ci réew ma mais duñ bëgg réew te boo jëlee bokk Haram Nigéria waaye Nigéria lañ mais dañu rey rek am na ñoo xam ne tey en réalité gouvernement Macky Sall terrorisme bi ba gën a installé Sénégal mënul jàll chef religieux yi jàpp nañ ci gouvernement bi jàpp ci. là aussi collaboration bu dëgër la ba tax terrorisme mooy rey ay nit comme ça rek mënu fi am léegi nag ñu ngi bëgg a wut porox ndal naan lii amul ay sobla loolu mooy diffusion de fausse nouvelle infraction le délit la ñu ngi diffuser loo xam ne dara ci dëgg ci lu mën a lor askan wi la parce que bu dee ay fausse nouvelle la yoo xam ni li ñuy du dëgg ba pare te ku leen topp ñu lor la ñoo ñooñu ay criminel lañ mën nañ teg ay daan yu rëy kon procureur daf ci war a profité sax raxas ndax réseaux sociaux yi sonal nañ nit ñi dañoo dëkk ci fen nar yàq der sos ak yàq bopp nit ñi loolu nag dafa am loi ñu wote assemblée nationale boo xam ne wote nañ ko ba pare dañ ko war a appliquer infraction yi def ci réseaux sociaux yi c'est prévu que ñu réprimer leen te mën ñu am avec la Sonatel avec la gendarmerie am nañ léegi ay moyens pour géolocaliser pour jàpp ku ne ñiy bind ak ñiy wax ñu téye leen ni leen nit pour que ñu Sénégal set Sénégal dafa salté salte ci ay saaga salte ci yàq der salte ci sos salte ci fen léegi nag bii occasion la boo xam ne en or ndax réew mi ñëpp a traumatisé ñëpp a jaaxle boo jàppee France 24 boo jàppee beneen télévision ñu ngi wone Maroc plus de vingt neuf pays la bloqué Turquie mën ñoo génn actuellement Maroc coow yooyu ba am nga taxaw naa lii amul waa xam nga ñii dañuy jabaatee donc il faut que l' soit fort, que l'autorité de l'État soit respectée, que force reste à la loi. Maintenant, anarchistes les anarchistes ñu nous neutraliser les d'Aouda, euh, mais loolu vraiment euh, yabaatee weesu loolu daaw la. Euh, maître El Diouf. oui Ndate Diop. Euh, maître li ma bëggoon laaj rek mom moy dogal bi nga xamni ministre de la justice jël nako ko wax ni dal dañuy dakal li di audience yi ci jamono ji nga xamni dañuy téré bepp rassemblement public en tant que avocat ban jàngat nga ciy def. mais ministre de la justice on a dëgg parce que président li femme li wax moom rassemblement fu am euh, ay comme tribunal day salle day fees alors rassemblement la privé public warul am na semaine mais xam ne weer bi président wax loolu gën a maana bala nga naan naam bala nga naan naam ndax bu yow yow boo dee nu lay àttee boo taxee fa lay àttee nga dee fa wala boo njëbee dee lu muy jëriñ. Mm-hmm. wala boo demee pour fekkee benn àttee jóge fa dem dee lu muy jëriñ. Mm-hmm. dama ne bakkan yemul ak dara. Mm-hmm. bakkan yemul ak dara. boo gisee France Amérique sax nee Europe bu ñëw ci Amérique. Amérique Trump nee na bu benn européen ñëw Amérique ñëw Amérique parce que affaire bi dafa garaaw. nañ gravité bi dañ ko gis c'est très sérieux nañ bàyyi ñàkk seede bëgg def ay xew ay ngénte ay dëj ay ki dell ku nekk jële ba feebar ku ku dem dee loolu ko mu jar te leen na xaru la te xaru daganul ku xaru boo mhm. dee dem safara mhm. nañ jéem nekk nit bañ a nekk dof jërëjëf euh, maître El Hadj ñu di ko sant di ko gërëm muy avocat à la cour doon di joxe doon